jàpp ni maa ko gën ndax nit a ngeen naan te ëppale la cër ca yàlla ndax nitu yàlla dana naan sàngara nitu yàlla dana njaaloo nitu yàlla dana toog ba jékki yëg boppam amatul soxla mu robb fii dem ci riyaasoor gi fay xaalis te dëgg jigéen ju ko dewut il faut faire très attention nitu yàlla dana ko def nit yàlla dana dem fekk mbànd mu naan ci ba dugg ci fee jàpp ci génn di taaya dana mën na ko def mën naa dem fekk alalu jàmbur mu tege mu sàcc ko mën naa dem jaxase ñaari nit ba nu xuloo ba seen giirub dund doot ñu juboo waaye du fen mukk du jëw bu la neexoon tey jii li may bon koy wa rahmatullahi mbokk yi ni ñu koy faral di waxee rek bés bu ne loxo dematina gémmiñ lii day ñoo ko déggandoo te gii façon wax day yaakaar ne ne ñi koy wax ñoom seenug yabel ci ñun mi ngi bëgg a dem dayoo nag xam nga jàpp ay nit yaakaar ne yaa leen ëppum xel wala nga yaakaar ne li nga jàng jànguñu ko wala nga yaakaar ne yaa ëpp fit wala yaa gën a réewu làmmiñ ba di génnee façon wax yu mel nii yii façon wax mbokk yi lan moo leen laalale ak lislaam su ngeen déggee boroom xam-xamu diine yi ci wàllu arab di wax naan daalun mudillun mooy kii wax kàddu yi ak ñi mel na moom yii wax fan lañ ko mën a layyile ci lislaam fan ci alxuraan walla ci hadis fan ñi am problème sérieux tey jii mooy ñooñu ñuy wax ahlu tasawuf parce que kii ci ñoom la boole seen bopp nga xam ni bés bu ne nga dégg ñu naan dem nañ ci kër diw dóor nañ ko diw wax na nangam menacé nañ ko diw wax na nangam saaga nañ ko lii moo jaroon loola man de duma fi nekk di indi benn aaya alquran ndax du jeex ci li mën a dajji waxam yi ci waaj dajji bu gaaw te yomb duma fi indi itam xadis ndax kii jarta indi loolu yépp yéen ñi nga xam ne yéen ay aji dégg ji te ay nit di ay jullit yu am seen xol yi lu muy yëg yéen doy ngeen seede ci mbir mi yéen ay seetal seen bopp mbir mi ndax jàpp ngeen ne rek xel dong nangu na ko waxuma benn waxuma yépp yi muy wax ne jul ne yàlla dana ko def benn ci yooyu laa wax benn benn bu ci bu ci nit def benn bu ci nit def na ko leer ne iblis noos na buumam ci bakkanam ki ci tane ki ci doon tane mooy koo xam ni kii kat dafa jëfe maanaam ak jaahil jëfe ak jaahil ñàkk jàng wala koo xam ni kii dafa manqué manqué doomu aadama maanaam nit koo xam ne kii daal dafa jëfe ak nite mu nekk ci yooyu di ci def benn waaye koo xam ne kii dafa ne yee dafa am sañ-sañ dafa ne dafa jàng dafa ne dafa xam yàlla ba tax muy def ci yooyu benn laa wax waxuma yi yépp de su boobaa danga naan iblis nos na ko ci ñaari bakkanam yi ñaari bakkan ñaari pax yi di ñor di jëm ndeyjoor ak càmmoñ mbokk yi ku ñuy wax nitu yàlla su mënee jëf-jëf yi mu wax waaw nitu ordinaire moom kon lan la war a def xanaa dañoo waroon a yor seeni jaas yi di wër mbedd yi di cor nit ñi di lekk xanaa dañoo waroon di toj taaxu jàmbur yi xanaa dañoo waroon di def li gën a garaaw ci àddina te dara du leen ca fekk képp koo xam ne kii dégg nga kàddu yi day te deful ci sa xol benn mettit war ngaa dugg yow sax ci ruq seetaat sa bopp lii képp koo xam ne dégg nga ko te tiituloo rëtuloo war ngaa dugg ci biir bërëb xoolaat sa bopp ñii nga xam ni ñoom lañ fi tudd di leen ragal ñuy ay franc-maçon nee ñu ñii nee ñu ñuy xeex lislaam ñii nee ñu ñee naan salafiste ya ñii naan wahabit kii naan euh, sunnit ñii ku mel na kii ñoo jara ragal ci biir lislaam ñii ñoo jara ragal ci biir lislaam mooy li wolof yi di wax naan sëb la la ko bënn nga ca biir ñii ñoom ñoo bënn sëb bi ñii ñoo bënn sëb bi dégg naa ci jeexitali waxam sax mu mel na am na ñuy yëkkati xasida boobu siiw lool ci baax ak yiw ak njekk muy xasida imam Moussa Gueye boo xam ne bii day yokk nit ragal yàlla su dee moom lay firi de man tiit naa bu dee moom lay firi ragaluma ne nag moom lay firi ndax yii kàddu moom méngoowul ak la imam Moussa Gueye di wax ca xasidaam mbokk yi nañu delluwaat ginnaaw nag seetaat suñu bopp am fulla ak fayda ju toll na façon nit yi bu ñuy wax ñu bañ leen déglu ndax kii kat sañu mën a yéeféer la déedéet ndax man li diine ji moomuma ko waaye dama ne waxi yéeféer la wax jëfi yéeféer la am jëf pas-pasu yéeféer la am ndax nag képp koo xam ne kii li ñu fi mën a tudde ay kabair ci diine l'islam naan sàngara njaaloo sàcc ak yu bon nga ne yooye yëpp nit sañ na koo def yaa ngi ci yoonu kéeféer gu wér cëng te wàccaguloo asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.